ko ñamoon dañu feete invité ñu ci dana jaadu ñu teew suñu digganteeg moom suñu relation yi nu am man ak moo waral ma déplacé bi ci alors Oustaz ku la xam xam ci ci nit koo xam ni euh, comme ni ko la fi waxee doo dem ci ku ñàkk fayda doo xam wala ngay ànd ku ñàkk fayda euh, ndaw la mu bokk ci xale yi nga xam ne ni gën bokk nañu ci ñi innovant bu tey ñu koy tuddee roi d'ampleur tey yan qualité moom nga gis xale yi war a mën a jàng ci ki nga tey doon tey man man mu yegg ci koo xam ne xëy na dafa ñu doon yëngu. waaw xam nga boo amee kilifa def ko dara te gis nañu ni heure bu daan bëre baayam day teew ñaanal ko mu ngeem ko ci kër baayam yaayam it def ay seede yi rafet man ñu nekk dama jàpp ne àddina bii nu nekk ku la mën a jàpp te say wuyjur jàpp la amul njëriñ ku la mën a bàyyi te say wuyjur bàyyi wuñ la amul njëriñ addina ñaar rek ñoo lay jàpp nga yëg ni addina bi ñaar rek ñoo lay bàyyi bu addina bi na ni kenn jàpp la muy sa ñaari wéy te gis naa ni wéy dund fonkoon na ko bi muy dund kon ñi mu bokkal géew bi dañ ko doon ci am kilifa dafa am kilifa rek wéy dund lañ ko jënd wéy dund bu góor yéen jëlam bu jigéen bi fi des muy yàlla yàlla rek qualité yooyu gis nañ ko ci moom te bu ñu soñoon ñu bokk ak lamb bi ñëpp roy ko ci loolu yéen ñoom ci seen biir moom am na ci waaye ay jikko la yoo xam ne ku mu nekk ci yow ñëpp roy ko ci loolu dafa am loo xam ni euh, ku la xam tuuti dana ko xam ci da nga fidèle da nga mën sa nit yow saa si euh, jikko boobu lan moo ko def ci wala lan lay wax ndax yéen a téye loolu bind la man damay faral di wax ni sama nit dama ko yemale ak dara parce que benn bi ma bëgg rëcc na fukk yu rafet man sama nit dañuy def ba yàlla yemale suñu diggante xam ne fii la yem nga jaar bii ma jaar te li fekk yàllaa nga ñuy boole maa ngi ñuy ànd suñu ànd day rafet heure ma yewoo damay beesal dama koy fësal dama lay défendre dama lay téye gisuma say sikk gisuma say ayib bu nu man ak yow nag ma wax la say sikk mais ci public kenn du tudd say sikk te fu ñu la tuddee ma la noonu nag boo la juum mais foo nekkul moom wax koy àndal ku ne tey dañ daan wax ni c'est un sax moom mais li nga am courage ak fidélité ba képp koo am nag rek wala nga xamante ne wala nga seen nga won ko Sénégal nga xam wala nga di ko wax. mais xamanteeg ay mbër xamanteeg ay mbër moo gën xamanteeg ay gel fuuf am ay xariti gel rek ak xamanteeg mbër xamanteeg mbër yee tamit man xaritu lépp laa am naa xaritu mbër xaritu footballeur xaritu basketteur xaritu rythme bi sax am naa. toujours am naa xarit xëy rek xarit buy tafawaate sax am naa xarit bi nga koo ci am ku ne dóoru sa wax ne sa xarit la daal sama nit day ni sama nit nga sama xarit nga ñuy ànd dañuy ànd su waree bàyyi bàyyi amul ku may àndal nag ci àddina ba yëpp ma juddoo ba fi ma waxee te jàpp ma ni suba suba mën ngaa jaar ma jaar mais ci doon rek day ngeen bokk bu ma am na xarit ban sentiment nga am ci mais xanaa rafetlu ko rek congal wax dëgg yàlla Balla bu jëlee doomam tuddee ko Aziz yàlla mooy gileem gi dellu na ci gétt seen diggante romb na loolu Aziz ko ne xam na cofeeti mu am ci Balla ku ne xam na sacrifice yi muy def ci dundam ndax Balla ku ne xam na li muy dégg ndax Balla Balla def ko jox ko boppam def ko muy magam Aziz di ci ak ci biti maa ngi lay seedeel lu mu mën a am ci àddina bàyyi la cër bu mat la ko seen ci lu ma xam man ko bàlla tuddee doom rafet na te itam jikkoom ak baaxam nag may na ko ay góor yu bari ci mu mel ni mën nañu wax ni cër beneen cër la moo xam ne bàlla wane na ko moom gis fi ne te seen diggante ñu Aziz xew gis nañ ko bàlla man ànd naa ko ay yoo xam ni lépp lu mu def wane nañ ci man waaw mais xam nga loolu loolu loolu mooy mën si. gis nga sëñ Babacar Si dañ ko way ci benn wayu olofal wax

lu rey mbuum dee nit boo ko bëggee da ngay fidèle sa diggante ak moom jàpp te doo ko jàpp ak lu mën a xew nga assumé ni kii sa xarit fidélité moom moo am seen diggante Balla bëgg Aziz Aziz bëgg Balla woon ko yor ak teggit respecté ko Aziz it delloo ko ñoom ñaar xamante ne mu ne cër bi nga war a jox sa morom ndax ma lay wax ni la bëri yëpp baax waaye tam ci ni baax te loo xam ne nag la seen naa leen waxoon seen naa leen dañu woon yonent bi bu la soree boo ko miinul da nga naan daa compliqué waaye boo ko jegee bëgg foo mu ko jëm ci waaye moom it baax na nit ku am gërëm wuy juróom waaye yow lii la am na ci rek li ko dal ci carrière wër yaa ngi saa si ginnaaw gàmmu gi wax dëgg yàlla man sax moom laa yaa ngi saa ku ne lañ ma doon woowee sa xarit bi est ce que coono dina ko àttan ak yu demee noonu loolu macha allah def na si jàmm si kii ci ngeen tudd ñoom soo mboq sa sa sama kër sa njaga soo yii nii yàq nga ci sa nit ñi voilà maa ngi si sama diggante ak sa nit ñi man nit ñi taw ndax sa yii léegi ma question bi.

ak ñu nekkal fi yëpp ñu siiw ñu bëri xamuñu la foo mën a toog di sa bopp ak Babacar bi yegg si na may leen ko may leen ko mais félicitations Sénégal oustaz Sénégal oustaz su àddina oustaz su Balla Gaye dama ni yéen la tuddee ak oustaz tekki assez-vous dans la place oustaz assez-vous dans la place oustaz loo def noonu man xamul nga oustaz ñu bëgg la foo dem mu nekk am diar lii tamit yeneen ci biir oustaz yàlla na yàlla fay sa xol yaram ak tegginam ak fulaam ak faydaam fu mu dem amu diar sax mais pour fa lii tamit jaaxal ma ci yow et ci eh, eh jàmm leen jàmm leen journaliste baa ngi ñëw